Euh, di tamit euh, sant bu baax Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mooy porte parole di porte parole yoon wi di rafetlu tamit message bi nga xam ne ñëw na délivrer ko message bi bi mu délivrer ñoo ko déggandoo muy li nga xam ni sëriñ bi daf ko wax jëmale ko ci barab ci Masalikul Jinaan muy étape beneen étape boo xam ne bii bu ñu bëgg a sóobu ndaxte ku ne xam na ni programme bi nga xam ni moo doon programme Masalikul Jinaan ay phase la woon yu bari muy d'abord jàkka ji nga xam ni fi leen ñu jullee léegi mu nekkoon lenn ci li nga xam ni moom la ñu waroon a defal ci programme bi programme boobu nag di institut islamique de recherche Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ni sax érigé nañ ko en defal nañu ko fondation ba nga xam ni xam naa ni ci fan yi la président Macky Sall dinañu signer décret bi bi nga xam ni moo koy érigé en fondation sur le plan même officieux ci statut fondation la la ñu tabaxee jumaa ji ndax li nga xam ni mooy matériaux yi nga xam ni moom la ñu importé mu jóge bitim réew lépp dañ ko exonéré woon defe naa loolu wax nañ ci ay yoon waaye bu fekkee ni bi statut fondation Massalikul Jinaan bi génn na ci la liggéey bi gën a gaawe ci lay gën a jàppandi ni ko Cheikh Mouhamadou Bachir waxe muy yóbbante bu Cheikh Mouhamadul Mountakha dañuy dem ci la seconde phase maanaam mooy ñaareelu phase bi nga xam ni moo nekkoon ca njaal bennu liggéey bi muy nga xam ni muy jàkka ji ak institut bi institut bi nag dafay englober lu bari dafa nekk ay ay modules yu bari yu nekk ci biir façon liggéey muy d'abord day am institut de recherche nga xam ni boroom xam-xam yi nga xam ni màcc nañu ci mbirum jàngale mbirumu diine mbirumu tasawuf ak jàngale li nga xam ne lii mooy njàngalem sëriñ Touba ak mbindam yi mu daal di nekk benn genre université boo xam ne biir ci biir institut bi lay ne nga xam ne dañ fiy def majalis yu mag a mag a mag mu nekk ay ay ay salle modulable yu bari ak i amphithéâtre ba pare daal di am tamit ci biir benn benn benn musée musée boo xam ne bi Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne lépp loo xam ne lii ay mbindu Serigne Touba la dinañ ko fi def nga xam ne dañ koy digitaliser parce que xam ngeen Serigne bi li mu bind bari na. bari na lool lool lool am na ci mbind yoo xam ni sax yu bari dem na ndaxte xam nga du bari dañ ko daan am mu doon ay barkeelu mu nga xam ni dans les grandes familles religieuses lay nekk ku ciy dem da ngay bëgg booy dem yóbbaale ko mu doon sa barkeelu xam nga xërte taalibe ak sëriñ bi yooyu nag nga xam ni sëriñ bi daf ci bëgg a joxe par exemple benn taxawaay boo xam ne bii mooy lépp loo xam ne mbindum sëriñ Tuuba la te ñu jàpp ni dafa yem ci xasida yi rek te weesu na foofu ndaxte amul benn fànn boo xam ni muy fànnu xam-xam muy fànn wànnu sociologie muy fànn boo mën a jël rek tasawuf te Serigne Touba bindu ci ak ay téere yoo xam ni daf ko synthétiser yoo xam ni seeni borom demoon na bu yàgg yàgg yàgg sàkku ci moom mu yeesal téere yi Serigne bi résumé leen synthétiser leen yooyu nag dañuy am un très grand programme de digitalisation boo xam ne bii dañ ciy ànd ak sax waa waa waa waa bibliothèque Touba ak ñi nga xam ni ñooy borom xam-xam yi nga xam ni Serigne Mountakha dajal na leen de à chaque fois mu leen di dajale di waxtaan ak ñoom ak di leen berndeel pour maanaam ñu mën a maintenir cet héritage mu nekk loo xam ne lu ñu Serigne Touba bàyyil muy un legs culturel énorme boo xam ne bii kenn inépuisable la et dans tous les domaines de la science religieuse alors dans la science religieuse et la science aussi sociale ba nga xam ne bii loola dañ fiy def un musée pour sauvegarder euh, li nga xam ne lii mooy mbindam yi ak tamit am ay reliques yoo xam ni ay relugi sëriñ bi la maanaam moo xam ne lu demoon ci ay bagaasam yi nekk njaareem yi nekk Daaru Xudoos yi nekk ci kër Serigne Touba yi nekk ci taalibe yi comme ñu koy defee au niveau de la mosque mosquée bleue fële ca Istanbul nga xam ne boo fa demee di nga fa fekk jaase yi Seydina Aliou di nga fa fekk karawu sang bi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nga fa fekk mantoom di nga fa fekk ay caraxam ak i dàllam te loolu lépp yu Serigne Touba mi ngi fi nga xam ni bëgguñu mu réer nit ñi di ko yóbbaale buñ leen di buñ leen di rob ñu def ko ba loo xam ne lii day nekk un musée bi nga xam ne bii day nekk musée pour sauvegarder le patrimoine aussi riche de Cheikh Amadou Bamba. bu ko defee tamit dinañu am une très grande salle une salle de conférence boo xam ne bii salle bu ñu toll amul ci Afrique. parce que on veut faire une salle de 3500 places loo xam ne lii bu ma ciy jël exemple rek fii salle bi fi ëpp defe naa mooy saalu Grand Théâtre te Grand Théâtre mi ngi def 1800 places ñun on va doubler la capacité parce que dinañ def salle boo xam ni dina nekk 3500 places ba nga xam ni toutes les manifestations religieuses les conférences et autres dinañ ko mën a defee fii ci Massalikul Jinaan loolu nag ak tamit am par exemple des appartements privés pour bu ñu amee des hôtes de marque yoo xam ne dañ fi ñëw en séminaire wala ñu fi ñëw en conférence wala ñu fiy ñëw ci période yoo xam ne yii maanaam yoon wi day soxla mu mel ni lu mel ni màggal wala lu mel ni waajal màggal wala lu mel ni par exemple l' anniversaire de l'ouverture de la mosquée Massalikul Jinaan le 27 septembre de chaque année mu nekk loo xam ne lii dina nekk un petit réceptif d' accueil des hôtes de marque loolu nag mooy li nga xam ne li mooy programme bi ci des moom la Serigne Bass ñëw doon wax nii dañuy ñëw pour pousse liggéey bi Serigne bi nag dina ñëw ci fan yi ndax bërki démb rek Serigne bi ci boppam jot na ma ci téléphone ni ma man rek lay déglu ak Cheikh Mouhamadoul Bachir heure bu ñu bëggee rek dina ñëw poser première pierre bi pour ñu commencer liggéey bi loolu daal moo doon moo doon moo doon moo doon moo doon moo doon moo doon message bi nga xam ne bii Cheikh Mouhamadoul Bachir doon na ko waaw liggéey bi nag ñaata la ñu xaymaa xamuñu ko pour l'instant mais daal nañu xam ni day loo xam ne lii lu am solo lay doon parce que ça va être vraiment encore des milliards de francs yoo xam ne yii communauté mouride bi moo koy joxe comme ni ma leen ko waxee woon rek ñun taalibe Serigne Touba amuñu amuñu amuñu benn benn benn pause benn maanaam jafe-jafe ci Serigne bi sant liggéey ñu jàjju ñu dajale li ñu am dugal ko ci li nga xam ne mooy li liggéey li sëriñ bi liggéey bu neexee yàlla dina ñu xayma li nga xam ne lii mooy le programme ak ñaata lay jar ñaata la nga xam ni moom la ñu war a war a war a dajale pour mu tàmbali liggéey bi bu ko defee dinañu def un point de presse ou bien une conférence de presse wax leen li nga xam ne lii mooy montant liggéey beeg wax leen tamit li nga xam ne lii